bandiraɓe julɓe ceerno yahya ina wiya dental ngal assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e eh, mbokki julli ɗi ceerno yahya mooy wax ak yéen ma ngi wax mbooloo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu nee na yàlla doral na bépp nañ ci jataay bi lool ɓe darima e eh, ɓe darima e eh, yamirore ceerno eh, mouhamadoul bachir nene yalla dogal na ma xaw ngeen ci ndigal li nga xamante ni ceerno bachirou santaane na ko ceerno mouhamadoul basir o yiɗi tan koko moƴƴinta ɗum ndax ceerno mouhamadoul basir li mu bëgg rek mooy ne yëfi jaar yoon gila ɗum fuɗɗa dippi bu ñu dooree na boobu yàlla dogal lépp fekk nañ ha heɓi ɗo hannde bi yàlla dogal tey nu teew fi tey o darani hen tan koko li mu taxaw daal mooy lépp jag rek o darani ñaamde na ma ngi li nga xam ne mooy lu doomu aadama di jëfandikoo yarde mumen e jippule mooy lu ñuy lekk ak lu ñuy naan ak fu ñuy dal ko nee na loolu yëpp la ko waral mooy bëgg Cheikh Oumar Fouti yi nee na yàlla dogal na Ceerno Bachiru sët la ci Cheikh Oumar Fouti yi wante nag dafa nekk koo xamante day liggéeyal Cheikh Oumar Fouti yi ndax ay magam la fi dundaloon moom Ceerno Bachiru Muntaqa ceerno cheikh oumar muntaka ɗaha moy ceerno cheikh oumar muntaga taha magam la won ceerno makki muntaka ɗaha ceerno makki muntaka toha magam la won ceerno habibu muntaka ɗaha ceerno habibu muntaka toha magam la won ɓeɗo fof neena ñi ñep ɓe lomtima ɗo e galle he yalla dogal na wut ni fi ci kër gi o woni juuɗe mabɓe koyɗe ma mu daldi nek seen loxo nek seen tank kala ko be cokkoli lepp lu ñu soxla ko be jiɗi ak lu ñu bëgg e, e, ko ɗum ɗum waɗa lool la ci yalla bashir du dox loolu lay def e yidde cheikh oumar nag ki bëgg cheikh oumar fouti mo wurtini galle o nee na moo dundalaat kër gi o moƴƴini galle o moo yewenalaat haano njiiru ɗon nee na duñu tekki suñu bët comme nañ ko gisee amin jetta allah min jetta moom nee na ñu ngi sant yàlla waaye ñu ngi leen di sant bu baax onon onon arɓe ɗo ɓe yéen ñi nga xamante ni yéen a fi teew ñëw fi onon kaala ɓura cheikh oumar ngeen nettale li nga xamante ni mooy xéewal cheikh oumar yi ko yàlla defal e hettiɓe ɓura ɗe ɓe kamɓe fof ak ñi nga xamante ni ñëw nañ di taataan si loolu de fof ko yiɗ nee na loolu yëpp lu muy firi mooy bëgg Cheikh Oumar Fouti nee na ki doon wax fii léegi nee na yàlla dogal na kooku rakkam la mooy Mouhamadul Hanafi mi doon def muhaadara bi nee na yàlla dogal na moom Mouhamadul Hanafi mi xam ne diggante Thierno Yahya ak way biram nee na yàlla dogal na ñu fi toog ñëpp ay doomam lañu nee na ñëpp nag bu mu nekkaale woon ak ñoom ñoom mag ña mbeɗowon de boobu nag yàlla dogal na mi ne ànd ak ceerno basir muntaka koye ndigal muɗum nee na ci ndigalam yamirore mum ak li muy santaane yidde ak ci bëgg lu mu bëgg e tindinoore mum ak tegtal bu muy tegtale mbaɗen ni mbaɗen ni nanu doxale nii nanu defe nii kala commune mbaɗa nee na lépp lu ñuy def min eɓe gondunoomi moom ak ñi mu nekkaloon heewɓe ɓe heen jeeyi na ñu bara tey dem nañu yurmeɓe yaa yal na leen yàlla yërëm te jéggal leen am na nag ñu dese ndeegum kadi natti waawan waaye nag amatuñu kattan kamɓe fof noon ñoom ñëpp nag eh, minen fof ñoom ñëpp min ndewanno koy koy koy tindinoore ceerno bachir dañ daan jaar di wéere li nga xam ne mooy ndigalu ceerno bachir muntaka ceerno mahamadul bachir nee na ceerno mahamadul bachir yàlla na ko yàlla delloo yiw so yimɓe ɓe nootimamo hannde nee tey bu nit ñi ñëwee wuyusi ko ina haani no feewi nee na loolu lu jaadu lu war a mën a nekk la moo noon jaaraama kon nag sant na leen e siftorde ɗo geɗe cheikh oumar ci fàttali fii li nga xam ne mooy mbiru cheikh oumar sabu nokko ndax béréb bii ko nokko muntaga ɗaaha bérébu muntaga ɗaaha la cheikh oumar cheikh oumar mon ɗo leeli mu ngi fii tëdd suñu gannaaw mo lelde e ɓesmu makko mu ngi tuddaale foofu ci njabootam kamɓe fof ñoom ñëpp nag ɓe liggotonoo tan ñoom liñ doon liggéey ko liggéey cheikh oumar liggéey Cheikh Omar Fouti e ko Cheikh Omar yiɗi ci li Cheikh Omar bëgg e ko gollanno ak lu mu doon jëf ɗum tan wonno haaji ñoom loolu moo nekkoon seen yitte neen ba yàlla dogalu teew tey nee na ma mujj xilaafa gii moom Thierno a Bachir kon nag bu taxawee fii tey yàlla dogal ay doomam a ko dimbali. kii toog ci wetam mooy doomu Makki Muntaga Daha a na ca wuutu Muntaga Daha nee na waxul dara. sanaaku Bachir. waaye lu kenn Bachir wax rek. bii daa foo wiyata ba yaatu. def ni ko loo wax rek loolu laa wax. Cheikh Umar. Cheikh Cheikh Umar Muntaqa Taha. kon noonu. kon noonu. Habib Muntaqa. Habib Muntaqa Taha. kon noonu. Mohamed noonu. lépp loo laajte. et que bii daa. ci ci laa wax kenn ku ne. bii euh, wiyata ma. def laa wax ni. yaatu Bachir. demal ci kenn Bachir lu mu wax rek. kaal daay moom nga waxtaan ak moom. moom ndeke euh, eh, ko ko kanku ñibbi. waaw kañ la de. nee na kon mooy ki nga xam moo samp ji ñi. o tawa waaw dindi nee na fekk ni jiw ba noon ko nag so coñal ngal yonti bu góob jotee ombo tawa ma nga fekke góob bi kadi nu fekke ko e makko nu dajeek moom tawala eɗen eh, jetta hen nee na noon kay bu baax kono ko liggéey ma waaye nag liggéeyam la de allah jarama on jaar na yàlla sant na leen jooɗade mon ɗo nee toogaay bi ngeen toog fii mbaɗon ngal ɗo ten tan ngeen def jataay bu ni mel julɓe foɗɓe ni jullit ñu doy nii yiɓɓe cheikh oumar ñu bëgg ñu toog di déglu ngeen di nettali yiw bi e ko tawano ɗon kila ngeen fekke e ko on tawaka fof ak la ngeen fekkul yëpp oɗon no jeeya e gandal nee na loolu bokkri ci xam-xam kon nag yàlla leen yàlla fay yàlla leen yàlla fay sant na leen nag bu baax mu ngi leen di sant bu baax ceer ceer kono Cherif Makki nee na Cherif Makki ki nga xam ne moo juróon léegi di wax ceerno ban di mooy ak yi ceerno yaraban ko ɓesmi ceerno ñoom njaboot lañ ci ceerno Bachir ndax ñoom ñoo fi nekk ndoo woon depuis bu ñu feeree rek lañ fi ñëw aɓe gonde ceerno ñi nekkaale ceerno basiru eh, aɓe joob ñuy root fii eh, aɓe aɓe ndem ñuy bay aɓe ndog ñuy lépp lu neex ceerno lépp luy baaki ceerno mbaɗa gila ɓe mbawa bu ñu mën woon ba léegi mën nañ soɓe darima nag bu ñu taxawee fii tey eh, ndaw ko haali ndeena lu jaadu la de sant na leen de kono on fof almuɓe waaynen yim taaliɓe yëpp de wonɓe ɗo ñifi tew e ceerno idrissa ceerno idrissa mene fi jonde nde neena toogaaji mbawa limtude neena munul limde noon seen liggéey amin amin mbela ɗum ceerno nene min belti nee na bég nañ ci lool nag on foftini nee na noppal ngeen leen on moƴƴini dee na yëwnal ngeen defaral ngeen yëf yi yàlla leen yàlla jëlloo yiw nee na ñoom bi ñu ñëw nag ñu fekke si li ngeen di wax li mu bég ci loola mu seedal le loola li ngeen di wax li lu neex yàlla la neex na yonent bi neex na Cheikh Tidiane neex na Cheikh Oumar Fouti nee na kon nag bu ñu waxee loola nee na yàlla moo leen di seedeel loola yonent yàlla bi moo leen di seedeel loola yàlla nun ko yàlla nangul li ñoo wax lii booye lépp loo xamante ni yàlla moo ko santaane ñu def ko boo ko waxaatee e- e- e- yawat dafa am mel na yaat ni ko doon def yéene ci yam watɓe ɓe nee na ñi ko def mbaɗino ha def nañu ba noppi kono haaltiɓe ɓe waawi ñëw di nettali wat koɓe eh, mbanno ke loolu ñu defoon ko noon woni fekkee noon la mel nee na yaa ngi te ñoon ci yi woowu le kon nag yàlla ci yàlla boole sant leen la nag bu baax ziara na leen nuyu na leen yàlla na yàlla jëmale yëfi ci kanam yàlla na yàlla may lu taxaw lu yàgg kenn yu mel nii fekk ci kanamu xalifa bi ña yàlla nañ ko fi yàlla bàyyi ba ci kanam a kanam a kanam fekk nag mu ngi ànd ak wér fekk mu ngi ànd ak kattan ci daraja yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam كون نجي جانا فاتحة شندي قولوا نت خليفة بمكان بشير تكي صلاة الفاتحة نتيون يا لطيف جرام نتيون نرف هدية نتي على محمد صلى الله عليه وسلم تبارك تيانا منتغا داها أني بوطن يا لطيف يا لطيف نقول بسم الله آمين آمين آمين آمين, آمين. آمين. آمين. آمين. آمين. آمين.